vous avez fait un passage de quatre ans au ministère de de de, de l'environnement mais euh, j'en je rétropédale un peu hein c'est juste pour en revenir euh, mbiru gazelle oryx yi <laughs> regretté woo ko. bon c'est que Maïmouna loo ci xalaat yow ci affaire yooyu affaire boobu. lan lool ah man ça m'a choqué. non non lu tax mu choqué la. non ça m'avait choqué. non lu tax mu choqué la. non dañ ne c'est un espèce la boo xam ne c'est c'est c'est protégé. dañu ne. non dañu ne les environnementalistes à l'époque oui. j'ai tenu un débat ici espèce la boo xam ne c'est protégé euh, dafa am euh, un périmètre nuñ ko nu ñu war a organiser le périmètre bi mu war a circuler on a a pas bu euh, dafa am dafa war a nekk ci ci ci ci yenn euh, espace consacré euh, à ces à ces espèces là li ma choqué woon mooy nga nekk ministre de l'environnement yow nga war a protéger les espèces la biodiversité nga xam ci loolu yëpp mais yow nga ñëw jël pour ton plaisir personnel et puis nga jël aussi nga servir alingu yi nga servir un autre marabout man man loolu moo ma ci loolu moo ma ci gêné woon nga am nga ah. léegi-léegi maa ngi doon euh, rafetlu euh, liggéey bi ngay def mais boo gonee góor góor lu tuuti dina baax xam nga lu hmm. tax euh, métier bi ngeen di def dafa am yàlla lu mu ci wax yàlla moo ñu ne yaa ayyuha alladina amanu in jaakum ba bi naba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu man bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin mu ne boo jotee xibaar na nga leeru ce qui s'est passé je vais même pas revenir dans les détails dafa mel ni tey nga ne un ministre de l'agriculture il n'a pas droit de faire de l'agriculture man tey jii boo demee ci sama tool di nga fa fekk xar di nga fa fekk béy dañ nga fa fekk nag dañ nga fa fekk lépp parce que dama bëgg ay mala en bon alpulaar am na ñu attaqué woon loolu mooy le forum civil. Mm-hmm. dañ dem au niveau international bind leen mais la réponse qu'ils ont reçue publié wuñ ko li ma ci doon wax période boobu euh, yaakaar naa ni euh, waxoon naa ko tontu woon naa ci waaye euh, je donne l'information ici bi mbir mi passé mbir mi bu mu jàllee comme j'avais demande à tous ceux qui veulent parce que la protection de ces animaux-là était tellement importante qu'on devait les mettre dans des endroits différent pour éviter des problèmes de consanguinité loolu la euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu euh, ci wàllu international euh, mooy les animaux loolu lañ digle boo nekkee ministre nga nekk di def benn activité yow yaa ci war a juito wala nga yaa ci war a encourager nit ñi beaucoup de gens ont épilogué sur la question pour dire que dama jël je n'ai jamais pris. qu'est-ce que vous avez fait je vais je vais je vais vous dire parce que dafa mel ni euh, dénkaane dañu jël benn euh, loo ñu dënk ko diw ñu jël beneen loo dénk ko diw dans les protocoles c'est la propriété de l'État ça n'a jamais été ma propriété la preuve tey boo demee doo ko doo leen fa fekk. da leen delloo. non delloowuma parce que dafa amoon. Euh, quelque temps après euh, mu am benn euh, kii boo xam ne dafa benn ki yoroon benn ferme bind pour laaj ñu jox ko ma ne la au lieu ñuy dem di capturer ji nañ jël yi fi nekkoon ñu jox ko. pour vous en débarrasser. non c'est pas une question de se débarrasser parce que euh, période bi ñuy wax mbir mi je les ai gardés parce que je sais que je n'avais rien à pour la simple et bonne raison jënduma ko moomuma ko musul nekk sama moomeel c'est la propriété de l'État et ça été toujours la propriété de l'État li ci nit ñi doon wax baal naa leen. non xam nga lu tax dama lay wax dama lay wax parce que. xam nga lu tax ñu wax ko. Mhm. ñu si bëri émotion moo leen ci du moo leen ci dugal. non du émotion. non non non man nee la ñu si bëri émotion moo leen si dugal parce que forum civil moo si njëkk wax. mais forum civil bind na. mais mais mais mais. Abdou Karim ma ne forum civil moo si njëkk wax. forum civil bind na te tontu nañ forum civil. waaw d'accord lu tax ils n'ont pas rendu public la réponse mais mais xam nga bu ñu waxee espèces protégées ce sont des biens de la de la de la de la nation. dafa mel ni tey rek président de la république utiliser dooleem ñu ne ñu ne. quinze lions moo des au Sénégal ce sont des espèces protégées. Mhm. président de ne moom war na ko mën a protéger. mun na ko moom lu lu war pas moom nañ ko ko indil palais c'est-à-dire. dama lay dama lay wax. Ah, xaaral xaaral <laughs> alalu alalu askan askan wi la ñoom ñoo ko moom. bu ñu toogee ñu dégg ne am na ay kilifa ay borom barke. parce mhm. que pour yor oryx foog nga mën ko. Mhm. yu nekk di jël ay espèces protégées bien euh, nu mu tudd patrimoine euh, national mm-hmm. di ko transférer seeni seeni ci seeni ranch privé mm -hmm. c'est normal que mu créer de l'émoi dama lay wax tey jii au sein de la ma ne tey jii tey jii ah tey jii si j'étais ministre de l'environnement mu am ku demander ci cheptel boobu dama koy jël dénk ko mais c'est normal mu créer de l'émoi non non non xam nga non ma ne amul émoi émoi bi amul amul amul c'était c'était c'était plutôt euh, de l'émotion bi nga xam ne ñi ko doon entretenir euh, c'était des acteurs politiques. beneen bi. non ma ne c'était des acteurs politiques. des acteurs politiques comme. forum civil forum civil du ñu. ñu si doon wax yëpp ay ñu si doon wax ay politiciens. oui mais ne euh, euh, xam nga ñi ñu si doon wax yëpp. <laughs> forum xam nga ñu si doon wax yëpp ay politiciens lañu. mais man pour man ce problème là il est derrière moi dépassé naa. <laughs> mais li am solo li am solo mooy. Hmm. sànq yaa ngi bëgg a poser question ci ARTP nga bàyyi ko. non non damay dellusiwaat ci ARTP. non non non damay dellusiwaat. non non j'évacue les questions connexes. Mhm. xam nga euh, ARTP euh, émission benn émission doyul pour ñu wax ci ARTP. non waaw mais ba ma daaneel fii ba pare monsieur le ministre seen argument bi ngeen joxe naan dangeen di jàppale état monsieur le ministre un état sérieux et l' état du Sénégal est sérieux c' est un état souverain euh, jagleel ressources yi muy jagleel secteur de l' environnement. état boobu war na mën a organiser wu ba des espèces protégées mu créer les conditions pour seen développement seen éclosion au lieu mu koy yëkkati di ko jox ay particuliers. je Maïmouna je vais je vais vous donner des exemples euh, yu leer xam nga euh, bi ñuy indi euh, xeetu gazelle yooyu bëriwuñu woon dañ jël benn partie yóbbu ko kattane jël benn parti yóbbu ko Fatala jël benn parti yóbbu ko euh, ci euh, yoonu yoonu mbuur bi. Euh, Bandia. Bandia. Ah. mais aujourd'hui à Bandia et Fatala les espèces se sont multipliées. et tous les Sénégalais y ont accès. ma eh, eh, nous on n'a pas accès à votre yow soo soo soo bëggoon tey soo bëggoon tey am espace boo xam ne mais c'est pas compliqué nu ñu yore xar ak nu ñu yore béy c'est la même chose amul benn différence donc pour man loolu émotion la. mais la am Bandia tous les Sénégalais peuvent y avoir accès. ma on ne peut pas avoir accès à votre ranch pour gis oryx yi te oryx yi suñu la ma ne ma ne. Ah. Euh, euh, la question n'est pas à ce niveau-là. mooy lu tax ñu war leen jël teg leen fii teg leen fële imaginez que qu'on met tous les espèces ci benn euh, endroit mu am feu de brousse mu décimer leen imaginez qu'on met ces espèces là ci même endroit ñu am problème consanguinité ñuy dee ñoom ñëpp c'est l'état qui perd loolu moo tax pour éviter de mettre tous les œufs dans un même panier dañu recommander ñu fexe ba pour sauvegarder l'espèce ñu jël leen teg leen ci ay endroit yu bokkul man c'était une bonne volonté du ministre de l'environnement que j'étais parce que je voulais donner l'exemple et jusqu'à présent je lance un appel je pense que le ministre sera d'accord avec moi pour tous ceux qui veulent participer à la sauvegarde de cette espèce la bu fekkee ne am nañu ay bërëb ils n'ont qu'à aller signer un protocole jël espèce yi yóbbu leen foofu je ah. pense que sur sa amul benn jafe-jafe mais man je comprends sa a soulevé plus d'émotion qu'autre chose parce que benn euh, euh, euh, du sama moomeel kenn mënul wax ne dama ko jël aki moo ko le protocole il est là il est très clair entre ki nga xam ne moom mooy doon gérer sama sama sama tool ak ak ministère bi deuxièmement. et le ministre. le ministère waaw <laughs> mais c'est mais où est le problème. et le ministre mais Maïmouna Maïmouna aujourd'hui ah. aujourd'hui est-ce que euh, le ministre de l'agriculture warul am tool pour bay. c'est parce qu'il est ministre de l'agriculture que warul am ah, mën na euh, warul am warul am des centaines d'hectares pour bay. si mën na am des centaines d'hectares pour bay oh. mais. euh, y toujours un risque de de de de conflit. d'intérêt si conflit si parce que ministre de l'agriculture bu amee tool pour bay. ba ban joxe engrais mën na jox boppam. engrais bu baax bu wut ay espèces. mën na jox boppam donc nit ki daal bu ñu la falee bu ñu la falee ministre. waratoo contribuer au développement du pays. waratoo bay. waratoo sàmm si mais mais mais nga jébbal ko. le le le ministre de l'élevage il ne doit pas aussi avoir un cheptel chez chez lui. mais si mais mais mais ci gazelle aussi. non pour man c'est un cas particulier ma mun a. Ah. gis nga euh, les gens en ont fait un débat à l'époque xamoon naa li ko yëkkati. te xamoon naa li ko yëkkati woon mooy la loi plastique. sur les déchets plastiques sur les déchets plastiques. il y a beaucoup de gens qui ont actionné la presse pour essayer de me déstabiliser sur ce point-là mais yàlla xam na. amul lenn lenn. lu ci lëndëm mais mais l'adoption de la loi sur les déchets plastiques a été applaudie. applaudie mais y a mais mais mais l'application a créé énormément de problèmes. l'application a créé man xam na les gens se sont organisés mais amul woon intérêt. à ce que cette loi soit rigoureusement appliquée. les industriels les fabricants. mm pas intérêt. parce que euh, ancienne loi bi dafa ne les sachets plastiques inférieurs à 30 microns ñun loi bi ñu tëgg dañu ne euh, plastiques yëpp sachet plastique yëpp quelle que soit l'épaisseur qu'il soit biodégradable oxo biodégradable oxo fragmentable donc les l'industrie était menacée. aujourd'hui c'est entré dans les mœurs. aujourd'hui vous, vous ne verrez plus de gobelets plastiques. tey jii pour nga dox gis gobelet plastique ci dëkk bi. Mhm. c'est un ça ah, les gens ont réussi on a réussi mais jusqu'à présent ça reste moment boobu nag may mun a c'était un lobby qui a utiliser la presse pour amplifier cette situation la dans le seul but de me déstabiliser mais li wóor ba wóor sur cette opération la il n'y a rien d'illégal et d'ailleurs le forum civil avait saisi. Euh, euh, mën na bañ a illégal mais mën na amoral. il y a pas de il y a de problème de morale. Euh, quelque chose bon peut ne illégal mais poser un problème d'éthique. kuy sauvegarder kuy sauvegarder kuy sauvegarder ay espèces ban lan ban ban immoralité. moo mais mais mais non euh, monsieur le nañu en fait dama ci doon revenir rek mais nañu dépasser débat boobu parce qu'on ne s'entendra jamais c'est-à-dire mën na bañ illégal mais mën na poser un problème d'éthique un un, un conflit d'intérêt sous-jacent. Euh, euh, euh, la mooy problème bi intérêt bi man lan laay gagné ci loolu. qu'est-ce que je gagne pour parler d'intérêt qu'est-ce que je gagne dans ça que je gagne Ce qui gêne, c'est que ministre, est-ce que, est-ce que je, de l'Environnement, non, mais quest qui gagne en charge de la protection de la faune et de la flore, un ministre de l'Environnement qui protège mu dem tibb ci suñu ma ne un ministre de l'Environnement qui protège l'environnement ça gêne mu dem vous avez parlé de conflit d'intérêt man est-ce que mën nga ma wax ban intérêt laa ci am ça c'est une bonne question qu'il fallait qui ont agité ce débat ban intérêt laa ci am ban wax ma c'est pas d'intérêt l'intérêt bi ma ci am mooy protéger l'espèce mooy donner l'exemple fallait communiquer sur ça. j'ai communiqué sur transparence. ça j'ai communiqué sur ça parce que amul kii bi amul amul lenn lu ma. non mënoon nga def en toute transparence ngeen ngeen organiser une cérémonie. ma ne voilà jox ñenn ñi et puis ne yeneen sénégalais yi boo leen bëggee ngeen ñëw jël. ma ne j'ai j'ai j'ai informé j'ai donné cette information là xam nga débat bi lu tax mu mu arrêté hmm? est-ce que xam nga lu tax. forum civil quand ils ont saisi. les instances internationales de sauvegarde de l'environnement ñooñu dañu leen ne nous félicitons le ministre j'ai la lettre avec moi. vous auriez pu l'amener avec vous. j'ai la lettre te ku lettre boobu yóbbu naa ko assemblée nationale lors de mon passage pour le vote du budget te ñoom ils ont la copie de la lettre ils ont la copie de la lettre gis nga mbir mi du mbirum intérêt parce que les gens parlent de conflit d'intérêt man benn intérêt la ci amoon muy donner l'exemple participer à la protection de cette espèce là j'aurais dû être applaudi parce que nit ñi luñ ci laxas après nee la c'est plus de l'émotion qu'autre chose waaw baax na on a dépassé ce débat là delloo ma Oryx yi nekk tëruñu ak non bu nekkoon léegi la sax xëy na ça aurait moins dérangé